salaamaaleykum mbokk ñi teewlu ci téeméer tomb juróom-benn Thiès FM RTS altine ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril waxtu xibaar yi jot na. ponk bi di benn feetu korite gi ñu génn diwaanu Thiès ak diwaanu Tivaouane ñu daal di fay julli julli bu am solo ca julli joojee ñu seetlu sax ne imaam ya ñoom la ñu gën a fësal ci seen xutba bokk na ci utilisation bi nga xam ni ñu ngi koy def li nga xam ni mooy réseaux sociaux yi te lu ci ëpp ñu ci wax lu saafaanu wala luy yeefin na loolu nekk li ñu fas yéene waxtaane ci xibaar yi.
xibaar yi. Pape Mamadou Ndaw Amsatou Ndiaye feggoo Xalilula Diallo nekk ci xarale gi fépp fu waay nekk ñu naan la dalal ak jàmm ci Thiès FM RTS ñu door xibaar yi ak feetu korite gi nga xam ne ñu ngi ko doon feete ci diwaanu Thiès jullit yi daal di ciy ànd daal di koy amal ñu jàpp ne nag su fekkee ne ne am nañu jot a korite ci ajuma ji ci samedi ji ca jumaay Muusante foofu ñu jàpp ne imam Tafsir Ndiour moom moo jiite julli joojee nga xam ne Idrissa Seck moom mi nga xam ne ba fii ñu toll nii naam nee na tey dina tekki ndomb tànkam ca CSE moo foofu la jullee waaye weetu fa ndaxte Abdoulaye Dieye di directeur général bu AIBD moom it foofu lañ jullee kii di suñ reporter Papis Diallo moom it foofu la jullee lii lañ fa jëlee.
jàmm moom la ki nga xamante ni mooy imam Babacar Ndiour waxtaanee ci lu yaatu ci xutba bi mu doon def ginnaaw gu mu jiite julli Aïd el Fitr fii ci jumaawu musante bu Thiès. imam Babacar Ndiour nee na nañuy waxtaan di juboo di boole xol yi di dimbalante loolu rekk mooy mun a tax suñu réew nekk ci jàmm kenn du fi gis mbirum violence ñu mun a nekk ci yoonu développement ci loolu sax nee na population yi nañu jox cër bu baax force de défense et de sécurité yi loolu prophète Mohammed paix et salut sur lui digle na ko bu loolu weesoo imaam Babacar Ndiour nee na nañu def ndànk te xoolaat saytuwaat nañuy jëfandikoo li jëm ci wàllum réseaux sociaux yi li fa xew fu mu toll ni di ay saaga ay xastante ak ay yàq der war nañ cee jóg dakkal ko imaam Babacar Ndiour julli na ñaanal Sénégal mu nekk dëkk bu am jàmm jàmm ca la lépp xaaj te réseaux sociaux yi xëy na bokk na ci li ñu ko fas yéene xañ looloo tax sax imam bi daal di cay teg baaraam bu baax a baax kii moom teewee julli gi di directeur général bu AIBD di Abdoulaye Dieye moom it yëkkati na ay kàddu jëmale ci kàddu yu am solo yooyee nga xam ni imam bi yëkkati na ko waaye wax ci li nga xam ne tamit moo nekk taxawaayam ci dëkk bi Abdoulaye Dieye ñu teewlu ko ci micro Papis Diallo.
yëg-yëg bu am mooy bés bu sell la ñu ñëw tey fii di bésu korité ñu ñëw si juma musante fekkee julli korité bi nga xamante ni waa Thiès yëpp fi li ni jullee di nekk moment bu fort si ñun parce que dañuy jógee si weeru koor di weer bu sell occasion la si man ma baalu ax waa Thiès yëpp di leen baal ku ma xam-xam ne dama yàgg def social mais nag ren dafa am particularité boo xamante ni dañ ko jël man ak ñi nga xamante ni laay àndal di liggéey mooy équipe bu mouvement Sikki Jotna maa ngi leen vraiment sant bu baax dama si profité di wootee jàmm di woo toute la population de Thiès les leaders les responsables l'union des cœurs moo tax ku si nekk dem naa jox la papaña ndogu waaw saafonteeg la wan leen daal Thiès benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar imaam bi tey ku gis li mu xutba xam ni dafa wote jàmm salaam mais aussi ñu dimbalante ñu gëm ni suñu réew Sénégal réew mu mën a di développer la si kaw ku si nekk xam ni da nga am rôle boo si war a joué te rôle bi nag mënul weesu dara dul jàmm ak stabilité ñun ñi nga xamante ni ñun la yàlla jiital ñu nekk way politique yi mën nga def sa politique sans nga woote taal dëkk bi wala nga yàq wala nga def leneen ak leneen donc daal je pense que message bi fort na te loolu message bi ñu ngi ko jëmale clairement si internet si réseaux sociaux yi nga xamante ni nit ñi dañuy nekk seen clavier di saaga di woote taal et je pense que ni loolu message boobu message bu fort la te loolu ndaw yi ñoo ko war a déglu xam ne daal réew Sénégal réew jàmm la te duñu nangu kenn di ko taal.
xibaar yi. fii ci Thiès FM.
ñu jóge ci diwaanu Thiès daal di tàbbi ba ca diwaanu Tiwaawan foofu nag ca xalxuus la ñuy dem ku ne xalxuus wax sëriñ Bay Abdou moom moomee di njool Fuuta daal di jiite julli korite gi daal di nag yëkkati kàddu yu am solo ci li nga xam ne moom mooy ci xutbaam ñu jàpp ci liñ ci gën a jàpp moom it àdduna jëmale ci réseaux sociaux yi nga xam ni fi mu nekk nii lu fiy fitna bokk na ci li koy indi ñu teewlu ci reportage bi. wax yu teguwul fenn nekk li ñu gën a nemmeeku ci li nga xam ni mooy réseaux sociaux yi yenn saa yi sax ñu amal ay publication yu nga xam ni mën na indi fitna ci dëkk bi yooyu kàddu di kàddu Serigne Mbaye Sy Abdou moom mi nga xam ni moo jiite julli gi ci juma bu Xalxuus Pape Matar Kébé di jottali kàddu yi koo xam ne kii bu la nit ñi wóoloo ci kaddu nga wor leen ku la wóolu ba déy la secret ngeen séq ko yéen ñaar yàlla ñetteel leen foo toog waxtaane ko dugal ko ci réseaux sociaux yi dugal ko ci facebook yi dugal ko ci lu nekk xeetu application yooyu yëpp kooku mbokk yi moo di alxiyaana te maam Cheikh Alhaaji Malick nee na benn baaxu ci bu ngeen demee bay wax na ngeen wax wax ju jub wax ju rafet wax ju tegu ci yoon mbokk yi kàddu gu ñaaw jarul tiital xas nit taayaan nit tuumaal nit yàq deru nit ñu toll ci réew moo xam ne daanaka dàgg sante ku gën a ñaaw làmmiñ moom ngay tiitaroo ku gën a mën a saaga moom la ñu yëkkati ca kaw te mbokk yi kooku baaxu mu teew ci julli korite gi ci Xalxuus gouverneur bu diwaanu Thiès di Alioune Badara Mbeng di dëggal yi lay kàddu tey ñaan sax ñu soppi doxalin ndaxte liñ ñaari ponk yi lañ ci jàpp yu nga xam ne nii benn bi mooy jëm ci li ñuy wax réseaux sociaux yi mu woo nag pour ñu def ci attention surtout nag jëmale ko ci ndaw yi parce que réseaux sociaux muy portable yii nii xabaar yiñ ciy wax lu ci bëri du dëgg loolu nag xale yi war nañ di ci réfléchir pour bañ mu emporter leen ñu bañ aussi di ci dugal lu nga xam ne ni après day yee fitna wala mën naa dem sax ba buñ ci deful attention mën na yàq am réew loolu woote na ko ci pour ñu def ci attention mu woote aussi ci ku ci nekk bàyyi xel ci sa morom di sédd cër sa morom loo yéene sa bopp nga yéene ko sa morom di wax jàmm di def jàmm rafetal kàddu yi jëwriñ jii di Abdou Ndéné Sall maire bu Tivaouane di Demba Diop Sy ak préfet bu Tivaouane di Mamadou Gueye ñoom ñooñee ñëpp teewee julli korite gi ci xalxuus ca xalxuus googee la ñuy des ci diwaanu Tivaouane ak maire bu diwaanu Tivaouane di Demba Diop Sy moom it bi julli gi jeexee yëkkati na ay kàddu ñu teewlu ko tey dañuy ñaan yàlla ñëpp kenn ku ci nekk la nga daan def jamonoy koor nga def lu ko ëpp jamono bi nga xam ne du koor donc vraiment loolu aussi remarqué nañ ko ci xutba bi nga xam ne moom la sëriñ bi def di wax aussi ne que ñun comme ni ñu koy waxee toujours rek dañuy demander population bi di demander xale yi ñu delloosiwaat seen xel xale yi nekk nag ci gox yi dañuy wax ne que ñoom ñuy jàng nañu nafaral ñuy jàng ndax kenn ku ci nekk bu ñu la jàngalee rek boo nafaree doo fàtte te dañ daan dégg ci mag yi naan nit du gaaganti ko ci mbedd réseaux sociaux nag mooy mbedd ndax lu waay wax rek ci réseaux sociaux yi lu neex waaye rek mu def ko ci kon nag dañuy ñaan yàlla que nit ñi seen bopp aussi kenn ku ci nekk looy waxati na nga ko wóorlu ba mu wóor ba pare balaa nga ko génne ñi yor réseaux sociaux yi tamit ñu ngi leen di ñaan balaa ñoo génne ci dara nañ ko saytu bu baax a baax parce que loo xam ne bu xasee ba génn amatuloo pouvoir u téye ko fa muy àgg doo ko yëg doo ko xam booy waxati waxal li nga xam ne au moins bu ko nit ñi déggee nit ñi dañ nekk lii kat lu yëw la lu baax.
wax lu yiw ak lu baax dana dalal dëkk bi te dana fi yokk jàmm bu baax a baax loolu nekk kàddu yi nga xam ni maire bu diwaanu Tivaouane di Demba Diop Sy yëkkati na ko waaye dañuy des ca xalxus googee sax ak ki nga xam ni jamono ji mooy directeur général bu SETER di Abdou Ndéné Sall nekkoon fi jëwrin moom moomee sax moom it daal di àddu jëmale ci li nga xam ni moom mooy xutba bu am solo bi sëriñ Abdou daal di def.
ah discours bi moom day yeete rek discours bi yeete la parce que woo dafa woote jàmm woote li nga xam ne aussi ci temps koor gi boo nekkee di di di di sellal dafa wax ni boo continué wul sellal ça c'est parce que sa koor bi xamoo jaamu yàlla ba nga ci def wax na aussi ci affaire mburum koor ñu ngi ko war a génnee wax na aussi ci vraiment jàmm bi nga xam ni war nañ ko am entre ñun parce que ñu ni que jàmm rek moo indi xéewal wax na ko donc vraiment woote na aussi ci mosquée bi pour que li nga xam ni suñu xalif sëñ Babacar Sy Mansour moo ko sumb pour ku nekk liñ ci defoon nga gën koo tripler parce que second œuvre moo gën a cher gros œuvre te pour gros œuvre pare na te dañ ko bëgg a pare jàmm ak salaam dañuy njëkkante nag vraiment di ñaan yàlla suñu xalif yàlla bàyyi ko fi jàmm ak salaam ba nga xam ni que lii dina ko li nga xam ne moo ko sumb moo ko sóob ah ci xelam la nekk moo ko commencé moo ci ëpp lu mu ci def lii yëpp muy pare ko ak jàmm ak salaam donc ñu ngi ci woo taalibe yëpp ñu ngi woo bonne volonté yëpp ndax mu teel a pare parce que lii sagu tarix bi la sagu waa Tiwaawan waaw war nañoo soqi doxalin parce que vraiment boo boo recensé li xew ci réseaux sociaux yi nga xam ni vraiment ay loo xam du dëgg. dañuy wax pour influencer les sénégalais pour influencer surtout les jeunes jeunes yi war nañ leen dugalaat ci daara yi fii nag dëkku daara la war nañ dugalaat ci daara war nañu am beneen beneen beneen beneen foo xam ne dañuy jëlee information parce que loo gis rek da ngay gis fenn foo xam ne dañuy gis sax image yoo xam ne amul fii beneen dëkk la am buy tàkk ñu daal koy jaay daal la ah fii mi ngi tàkk fii mi ngi tàkk fii mi ngi tàkk fii mi ngi tàkk yooyu yëpp pour les influencer pour amener la violence te violence moom fajul dara dara dara dara dara dara loo gis rek concertation entente cordiale ak jàmm ci la xaj parce que ñun daal jàmm ca la lépp xàcc ba réew mi daal di am jàmm ñun ñii ñëpp sax yeewoo ko yendoo ko ba ànd ak moom di wéy ci jàmm waaye loolu lépp nguur gi comme opposition bi ku ci ne am na jéego boo ci war a def mu nekk lu am solo nees kiis ñu dem ak yéen ci xibaaru tàggat yaram.
tàggat yaram.
tàggat yaram dadikul salaamaaleykum.
maaleykum salaam Pape.
baal maa xaddadi.
baal naa la baal ma yàlla nañu yàlla boole baal.
est-ce que yaa ngi doon sport ci biir koor gi yow. ma ndur woo ko de.
non non koor gi moom zéro. zéro zéro.
zéro ñii ñoom ca tugal ñoom koor gi terewu leen a tàggat seen yaram ñoom ñooñee bokk na ci ay gaynde yi Sénégal yu wane seen bopp bu baax a baax ci week-end bi ndax ñu jàpp ne ay gaynde yu bëri. tal nañ caaxi ci weekend bi.
ki ci gën a ràññee Pape moom mooy kii di Habib Diallo moom mi nga xam ni jour Strasbourg moom dafa def doublé ci kanamu Reims moom doublé boobu nag moom aussi ñuy ràññee ci match boobu keneen kii mu bokkal équipe doon aussi sénégalais mi Habib Diarra mu doonoon aussi match bu am solo kii di Mbaye Niang aussi dugal na moom benn bal équipe am gagné Auxerre moom ci xeex ba muy am ci championnat bi pour mën a des ci Ligue 1 bu France boobu Sada Thioub tamit dugal na. ci Italie aussi ñuy ràññee ci Boulaye Dia bu Salertina moom it dafa dugal fukk ak benneelu but ci calcio boobu bii bi nag moom peut-être mooy gën a neex sénégalais yi mooy Sadio Mané mi nga xam ni dugal na c'était face à Mayence mais malgré benn but bu Sadio Mané boobu équipe am dañ ko dóor ñetti bal ci benn.
ñetti bal ci benn mu mel ne tamit gaynde yi ñu ngi wëyal.
ñu ngi wëyal fële aussi ci Angleterre moom ñu victoire bu am solo bi nga xam ni Newcastle moom am na ko ci. ci Tottenham bu Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr bi nga xam ni moom dafa doonoon titulaire ci match boobu bi mooy ñaareelu yoon même ci saison bi mu doon titulaire ci championnat bi mais moom it dañ ko génnee à la vingt quatrième minute lañ ko génnee toujours ci Angleterre moom ñu wax aussi ci Chelsea mi nga xam ni moom dafa nekkoon ci wutub entraîneur ñu ngi doon wax Zinedine Zidane Julian Nagelsmann Luis Enrique mais info daal bu ñu jot moom mooy kii di Mauricio Pochettino moom mooy ki nga xam ni mooy wutu Frank Lampard. ci équipe bu Edouard Mendy bi ak Kalidou Koulibaly.
mu mel ne Lampard kon ñu ngi doon xaar mu redressé Chelsea ndaxte bi ñu koy indi entraîneur intérimaire la woon mais finalement mel na ni défaite yi mu tegale surtout quatre défaites de de rang.
Real moo fa jaar waaw Real moo fa jaar doon na ko Ligue des champions aller retour Chelsea mi nga xam ni moom ba léegi mu ngi onzième place ci première ligue boobu donc il fallait exactement que ñu réagir.
ñu réagir xëy na nag jënd nañ ba sonn ñoom waa Chelsea waaye taxul mbir mi faju ndax ñu ngi ci fukkeel benneel place bi Champions League dañ koy séen rek duñ ca dem waaye tamit Real Madrid nam leen defoon daaw defaat na leen ko ren looloo tax Lampard mi amoon yaakaar des ci bopp club boobee mu ngi ci yoonu tëpp ñu daal di des ci tàggat yaram ak li nga xam ni moom mooy coupe du monde bi nga xam ni ca Argentine lay am te gaynde Sénégal yi fas yéene cee dem.
poule Sénégal bi moom xam nañ ko Sénégal dina jàkkaarloog Japon Israël Colombie ci coupe du monde U20 boobu bi nga xam ni ci dëkk champion du monde yi lañ koy amee Argentina muy doon compétition boo xam ni aussi ñu ngi ci xaar jàlloore yu am solo ci sunu gaynde yi. ñu poule boobu noo ko gisee.
poule bi Japon Colombie Israël.
normalement war nañu mën a génn.
mais du yomb du yomb de.
du yomb loo loo loolu leer na coupe du monde la. suñ ko waxee rek Colombie jege na Argentine. Japon aussi dañu sonle Israël aussi bon du yomb il va falloir que ñu. ñu xeex pour génn ci.
am nañ confiance bu baax a baax ci Malick Daaf ak ay xaleem ñuy am yaakaar ne dinañ ñëw gaynde yi Sénégal yu yu di seet yi ñoom jamono ji ñu ngay waajal Coupe d'Afrique des Nations di dem ca Algérie groupe ba sax génn na xam naa ne suba dinañ ci ñëwaat naam groupe baa ngi fi waaye bëgg a tënk mu gën a gaaw Coupe du Sénégal ci la ñuy jeexalee ak ñaari jongante yi nga xam ne dinañ am talaata ak àllarba.
Fatick moom dina janook amitié mercredi moom HLM bu Dakar moom dina dalal Walidane bu di ko jaajëfal bu baax a baax dadikool ci xibaaru tàggat yaram yu am solo yooyu nees kiis ñu dem ak yéen ci nasaraan waaye jàpp leen ne fépp fu ngeen munti ne ñun waa Thiès FM RTS ñu leen baaloo àq te di leen baal nees kiis ñu dem ak yéen ci nasaraan.